doyal boo leen génnee suba boo leen xëyee kenn du xam sax ndax xeex ngeen. incha allah yéen ñu gën yaay wilaay. yéen xam naa ne nag ndox jig na couple yi fi ñëwoon démb. plage xanaa bërki démb parce que am na couple boo xam ne SDE la ñu xamante. waaw. <laughs> couple bii géej la xamante. Mm-hmm. ak fan. est-ce que wanewul ne seen TV seen salax ndox la. lële mën na ne de. merci monsieur madame Niang kontaan nañu bu baax a baax a baax a baax ñu ñëw ci couple Kaluga. Monsieur, Madame Kaluga, vous allez bien bàyyi nañ si jàmm. Ah, merci tout se passe bien sant yàlla bu baax a baax tubarkalla. alhamdulilah. tubarkalla ñu bàyyi leen présenter ñu et nous dire cette histoire d'amour nan pas débuté. waaw effectivement donc am na loo xam ne soo ma ko laajee. tey dama si kontaan sawar si tontu. Mhm. micro bi. dama si sawar mhm. kontaan. dama si content lool.

Ah, assemblée ngeen xamante. leen xamante biir assemblée nationale. normal. Ah, donc maa ngi dëkkoon man en face assemblée. maa ngi dëkkoon en face assemblée. en face en face assemblée d'accord. lieu hmm. alors yàlla def ñu xamante mu nekk xarit ñu nekk affaire xarit ñu jàppante xarit. mooy gis li muy doxal yaayam weer wu dee day jógee fële Kaolack ñëw. Hmm. mu jox ko ravitaillement yebal ko. des fois maa koy jàppale pour mu yóbbu ko kaw la mais chaque fois loolu lay dund donc man loolu moo tax ma def ko xarit. ah boobu décidé nga wax ak jigéen comme que 6 ans 7 ans yi. bu décidé woon mooy nom naa la. Hmm. danaa wax jigéen mais pour wax jigéen nom naa la amul. <laughs> dëgg la de. voilà mais nekk bañ a wax ak jigéen. c'est pas possible parce que munoo am yaay. non je bi nga ko gisee. la la xel mi dem daal. non non non non même gisee sax sama eh. xel demul. ok boo fekk na gedd na. waaw parce que man boobu gedd naa jigéen. <laughs> micro bi. donc comme ni muy def ak yaayam. Eh. loolu moo tax ma jàpp ko parce que man dama bëgg sama yaay. Ah, ah. man aw ma téere du ma takk téere. sama yaay sama yaay moo may ñaanal. su ma jaaxlee damay daw si moom sukk mu ñaanal ma. lu ma bugg am am ko. comprends nga donc man noonu lay fonctionner même bi ma bàyyee lépp sax maa ngi sama yaay. moom bëgg yaay moo tax ma jàpp ko. Ah, macha allah ma ne ko yow yaay donc ñu nekk si loolu nekk xaritoo

naa xoolal sama xel <laughs> d'accord. madame ngi madame mi ngi ree de. ma bàyyi ko ma bàyyi ko mu dem. madame bàyyi ma tëb question bi question bi ñëw na sama xel mais du ma ko wax. léegi sama xel boobu. Uh-huh. andiwaat ma ma bàyyi mm-hmm. bàyyi affaire jigéen. Mm-hmm. toog neen presque deux mois. Mm-hmm. moom si boobu il est revenu moom moo ñëwaat. ma dem li ma doon wax mais ba léegi waxuma la waxuma ma waaw non ma dama doon xaar déglu nga wax ma. <laughs> te moo la ne woon nga xaar. waaw ah. désintéressement intéressé. ñun pàcc léegi. waxtaan ak sama njëgañaay léegi dama eh. bëgg dem waxtaan ak sama waa kër waxtaan ak sama yaay mhm. loolu moo def ma mhm. dem seeti yaay mi waxtaan ñu may ma soxna mais li ma koy sori sareel moom nit ku baax la ku bëre la ku gëm yàlla la ku correct la du foo vraiment man sant naa ko bu baax a baax macha allah parce que lu bëri mu ma si génnee man avant ma koy takk moom man dama dofoon ndeysaan non dama dofoon complètement parce que amoon na yeneen yoo xam ne nii loo xam ne kenn mënu ko nettali comprends nga. c' est kenn mënu ko nettali. du mm-hmm. fi jaar. ba xam ne gedd naa jigéen. mais moom dafa ma delloo si waat mënu ma ko fay. ku baax la ku gore la. ndeysaan. <laughs> loolu la la xam si moom. <laughs> maram tàccu ah. <laughs> looy dolli ci li monsieur témoigné léegi. Euh, maa ngi tàmbalee ci bisimilahi rahmaani rahim maa ngi nii ñëpp ñu nekk si télé bi ku nekk sa trop sa sant hmm, maa ngi kontaan ci émission bi sama dadi mii nag. man damaa kontaan sama ma ne sama dadi mii nag. sa dadi mii. waaw man damaa kontaan ci moom. damaa kontaan ci moom. ba pare li ma bëgg a wax lépp sax moom daf ko wax ba pare. man bëggeel sama diggante moom bëggeel bu ci nekk ma ci frontière ba su ma liggéey ba fin du mois dama ñëw ne ko lii laa fayeeku teel xaalis bi. Eh waay damay liggéey. musul musul fayeeku musul fayeeku weer de mu téye xaalis bi te ñëw jox ma ko musul am. macha allah bi ma ko xamee ba léegi ah, weer wu dee bu ñëwee da jël xaalis la lii defal lii defal lii defal. Ah, war nañu xoolaat suñu mbëggeel yi de. man suñu jabar duñu liggéey ba ñu jox ba ñëw ñu li lañ gañe duñ ko def de xam naa. man mooy man man ah, man man mooy sama àddina. Hmm. moom laa bëgg moom moom maa ko jural sangu sang yi Mouhamed. Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. kon nag lu ma wax si moom rek ay waxit lay nekk damaa kontaan si moom. sant yàlla. Hmm. moom comme ni ko waxee rek. bi ma nekkee ak moom ba si Sofia li ma wax ko xam nga mais moom dama content si c'est l'émotion. <laughs> moi je suis émue là ma c'est l'émotion. c'est l'émotion. moo tax toujours dama koy waxal. Hmm. sama xarit damay ànd ak dem réunion réunion génn ñëw content jàdd fii Je jàdd fii. waaw damay dem directement. moo waat ko si arxuraan barke arxuraanu karim bi ma takkee kii ba léegi mosuma ko mooy ngal benn xaaral ma wax la xoolal barke arxuraanu karim ba ba may sangu suuf du ma mooy waaw est-ce tey duñ def concours waat yow waat waat bi am xam nga problème mooy que waat bi am na solo <laughs> na ku ne waat waaw léegi c'est-à-dire xam nga mi sax di nga waat gis nga fi mu nekk nii oui dëgg bu jote hmm. dëgg bu jote dañ koy wax dañ bul xaar après demee nga wax ko. yow boo wàccee da jubal. waaw directement nga wax non musuma mooy man. mais père nag naa la wax benn affaire de. te sama àdduna. Euh. su ma ko naree def. Euh. suur boobu yàlla na yàlla jël sama bakkan. père. non ñun dinañ ko tàccu. Ah, dinañ ko tàccu vraiment. waaye mais père. Euh, créé nga ay problème yoo xam ni. di nga waat de. parce que ñun bu ñu ñibbee dañuy waat. Ah,

ah monsieur Ndiaye moom sa ngéem moom ah, waat gi daa ñëw rek mu catal. Ah. waat rek mu catal. non dama dama kontaan dama kontaan quoi. nu mu noonu. père dafa waat waataal ñëpp. <laughs> yóbbaale ñu rek yóbbaale ñu gannaaw bu ñu bële. non non damay bañ a lakk. xam nga li problème doo doo lakk. waat collectif yow mun a am doom tuddee gën di def di lakk mënut a def. baal ma rek yow kay. mais yow boo bëggee man bu ñu ma dépendre woon ci man yow micro bi sax dootuñu la ko jox. ah non non ah yow dèjà saraxe nga sa xeer sa xarit bi bi yow da ngay wàcc njib yow ñuy gàdd dèjà saraxe nga la. fii ñun ñëpp dañuy dañuy ñibbi loolu garaaw. oui yenn saa yi buñ buñ tardé jënd ndekki yóbbul xale yeeg yooyu. waaw ah, waaw ci la bokk ah loolu loolu la dem naa jubal. ñun ñëpp. incha allah. bi ñu waataale lee Ndiaye. yow it ñu bàyyi la nga nuyoo. Ndiaye dana waataale benn bi nuyoo. bàyyi sama sama sama doomu ndey nuyoo. kon madame madame Arma. waaw bonsoir Momo. bonsoir Safia. maa ngi leen di nuyu di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp.

donc mu ngi amoon ay soirée sénégalaise yu fa daan am